mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala di dajawaat ci suñu téere bi di minhajul muslim bu abubakar jabir aljazairi di téere boo xam ni day ëmb ay pas-pas ëmb li ñuy tudde ibaadaat muy jaamu yàlla yi ëmb la nga xam ne mooy jëflante yi ñu ngi nekkoon ci ibaadaat yi ba tey ñu war cee jël lii di fukkeelu bunt bi fukkeelu bunt bi mooy fi zakat fi zakat mooy bind bu njëkk lañ ciy jël mooy fi zakat su dee ne mbokk yi gis nañu ko day wax ni wa fiihi xamsu mawaad am na juróom benn bind yoo xam ni dees na ko jël ci wàllu zakat boobu almaadatu l ula fi xukmi zakat wa xikmatiha wa xukmu maani'iha bind bu jëkk ba mu lay jëkk a jàngal mooy lan mooy attey zakat lan mooy xereñe ga tax yàlla tëral ko muy xikma ba lan mooy àtte koo xam ne da ko war a def ba pare defu ko xukmu zaka bokk na ci jullit lépp loo dégg ci diine war ngaa xam lan mooy àtteem diine dafa am ay àtte loo xam ne farata la am lu ñu sopp am loo xam ne nii dañ koo sib mi ngi noonu di am yu xaraam lu nekk dafa am atteem lan mooy attey zakat azakatu faridatullahi ala kulli muslim zakat day faratay yàlla la ci kaw bépp jullit malaka nisaaban min maalin bi shurutihi koo xam ni danga am nisaab nisaab mooy taux ba ngay war a am kem ba ngay war a am pour génne ko zakat waaye it mu ànd ak ay chartam mi ngi noonu chart yooyu dina ko leeral ci kanam faradaha allahu fi kitaabihi yàlla moo ko faratal ci téeréem ne ko xuz min amwaalihim sadaqatan jëlal ci seen alal lii nga xam ne ab sarax la tutahiruhum wa tuzakkihim biha sarax boobu ngay jël ci seen alal dana leen laabal mi ngi noonu te it dana leen ful yëkkati leen dana teggi ci ñoom lépp loo xam ne bakkaar laa jukko yu nayeeg ak yu demee noonu ful leen yëkkati leen yóbbu leen ci mbaax ak tuyaaba suñu borom loolu la waxit mu ni yaa ayuha alladina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabtum yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm dépense leen ci tey yi ngeen di faggu wa mimma axrajna lakum min al ard ak lañu génne ñel leen mu jóge ci biir suuf wa qawlihi wa aqimu salaa wa aatu zaka mooy taxawal leen julli te joxe azaka loolee mbokk yenn aaya yooyu la ci indi waaye boo demee ci téere bi yàlla bi lu ëpp juróom ñetti fukki aaya ma ngay wax ci àllu wàllu zakat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ca ni wa yaqulu rasul sallallahu alayhi wa sallam buniya al islaamu ala xams islaam dañ koo tabax ci juróomi pilier shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah pilier bu njëkk bi mooy seede ne yàlla rek mooy ki yeyoo ñu koy jaamu te muhammad day moom nekk na yonentub yàlla jalla wa ala ñaareelu ponk bi mooy wa iqaami salaa taxawal la nga xam ne mooy julli wa itaayi zaka ak joxe la nga xam ne mooy azaka wa xajjil bayt ak lii di aji néeg ba wa soomi ramadan ak woor weeru koor lii mbokk kon mooy juróomi mbir yoo xam ni jullit amul droit di ko réere amul benn jullit lu dul war naa xam lii ñu war koo jàngal suñu njaboot muy juróomi pilier lislaam yi wa qawlihi umirtu an uqaatila annaasa yonent bi mu ne dañ maa digal naa xeex ak nit ñi xatta yashhadu an laa ilaha illa allah ba ñoom ñépp ñu seede ne kenn yeyowul ñu koy jaama ku dul yàlla wa anna muhammadan rasulullah te it muhammad yonent bu yàlla la wa yuqimu salaa wa yu'tu zaka ñu daal di taxawal julli génn azaka fa ida faalu zalik suñ defee loolu day asamu minni dimaahum wa amwaluhum kon day muccal nañ ci man seen deret ya ak seen alal ya illa bi xaqil islaam xanaa lu dul ci àq boo xam ne àqul islaam la te mooy ku fi rey nit dañ ko rey ku sàcc dañ dagg sa loxo wa xisaabuhum ala allah seeni bu regle nag day dellu ca yàlla lii it mbokk muy wane ne da ko tey jullit ñi ñoom kañ jàpp ne muy jullit mooy kii nangoo julli nangoo joxe azaka amma képp koo xam ne nee nga jullit nga sax di wax laa ilaha illallah te nanguwoo julli nanguwoo joxe azaka pour jullit ñi moom nekk ngoob jullit dañoo war a takk xeex ak yow bu jëree ñu rey la ñu rey la bu dee da ngaa insisté ca loolu wa qawlihi fi wasiyati Muaz xiina baasahu ila al yaman daan gis ca wax yonente bi ba muy dénk Muaz fekk maa ngi ko yónni woon ca yaman ne ko innaka taati qawman ahla kitaab yaa ngi dikkal nit ñoo xam ne dañoo yoroon ay téere jiitu fad'uhum ila shahaadati an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah soo demee woo leen ci ñu seede laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ca man day nekk naa koo xam ne yonent bi yàlla la fa innahum ataauka li zalik suñ demee ba daaji lay topp ci loolu fa alimuhum anna allaha azza wa jal xamal leen ne yàlla day qad iftarada alayhim xamsa salawat fi kulli yawmin wa layla yàlla faratal na ci ñoom juróomi julli ci bépp bëccëg ak bépp guddi fa inhum ataauka su dee ñoom topp nañ la fa alimuhum annahu qad iftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim su boobaa xamal leen ne yàlla faratal na ab sarax te mooy zakat bu ñuy jël ci seen alal tuxasu min agniyaihim daañ ko jëlee ca ña woom la ca ñoom wa turaddu ila fuqaraihim di ka delloo ca ña ñàkk ca ñoom fa inhum ataauka li zalik su dee ñoom topp nañ la ci loolu fa iyaaka wa karaima amwalihim yooyu Muaz maa ngi lay moytuloo ngay jël la gën a tedd ci seeni alal wattaqi da'watal mazlum ca moytul ñaanu ku ñu tooñ fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab moom day digganteeg yàlla ak ñaanu ku ñu tooñ kiiraay du fa am xadis bi it day nekk ci baasu xadis yi kii di Muaz ibnu Jabal nga xam ne ndaw la woon Yonent bi alayhi salaam yónni woon ko mu nekk Yaman te Muaz bi muy dee 33 ans la faatoo mu jox ko fa responsabilité nan lay jëfandikoo ña fa nekkoon di ay yahud mi ngi noonu ak i nasaraan nu muy leen di leeralal lislaam mu xam leen ne première étape bi mooy seede la ilaha illallah waaye gannaaw ba julli gannaaw ba joxe azaka mi ngi noonu te it boo jël azaka yi jël ko ca la digg doomu bul xool la gën a baax nga jël ko ca ca moytul di tooñ même bu dee yaay gouverneur bi leen jiite moytul tooñ ndax aji tooñ kat ka mu tooñ bu yëkkatee ñaan yàlla dara du tee yàlla nangu ñaan googee lii kon mbokk buñ la laajoon lan mooy attey zakat xukmuha da nga naan yàlla ka faratal ci téeréem yonent bi nee na ci ponk lislaam yi la bokk islaam tax day taxawal xeex képp koo xam ne nii dafa bañ na du ko joxe yii moom ngay wax ci ponk zakat yooyu amma bu ñuy wax nekk xikmatuha lan mooy xikma ci suñu borom tëral zakat loolee jullit bu ko xam dana ko sawarloo ñàkk koo xamit du ko lor du ko lor ci dara ndax jullit li muy def même bu xamul xikma bi su xamee ne yàllaa ko digle rek da koy def na doon comprendre na la ca gannaaw loolu wala comprendre ko mi ngi noonu yàllaa ko digle da koy def mi ngi noonu tey jii xikma njàpp ku ne xam na ko njàpp dalay laabal raxas say kanam ak say loxo waaye suñu borom mu ne yow mi war a jàpp wala war a sangu farata soo amul dara demal tiim tiim boobu mënuñu xam xikma lu dul ne yàlla ko digle dañ koy def jeex na kon mu ne min al xikmati fi mashruiyati zakat ma yali bokk la ci xikma ci li tax yàlla tëral zakat da ca jiitu mooy tatxiiru nafsi al bashariya min razilati albuxli wa shuxi mooy laabal bakkanu doomu aadama ci suufeeg nay ak li ñuy tuddee ak ngor mooy la nga waroon a def ci farata nga dem ba nay ca loole nga xam ne mooy buxli bi gën a bon wa shux mi ngi noonu gannaaw ba wa sharhi wa tami la nga xamee ne ni mooy ak xir ci bëgg alal ak xemmem ko xemmem goo xam ne day tax nga koy dajale amma ki nga xam ne alalam bu doon daa bay tool dana ko xaaj fukkeel ba mu jox miskin yi alali boppam mu xaaj un quarantième joxe ko ku mel noonu loolu da koy laabal ci ñi nga xam ne bu ñu dencoon des centaines de millions yi faqir bu ñu xëccool mille francs faqir bay bàyyi waaye ñoom duñu bàyyi loolee kon mbir boo xam ne nii dañ koo war a bàyyi xel bu baax noonu ñaareel bi mooy muwasaatul fuqara mooy la nga xamee ne ni mooy jokk faqir yi wa saddu xaajatil muwisin daa di fagit la nga xam ne mooy aajoy ña aajowoo mooy ñi ñàkk ña wal bu osa mooy ña nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe tiis rek ak ñàkk wal mahrumin ak ña nga xam ne dañ leen a xañ ñooñu ñëpp boo ko tënkee day dellu rek ci faqir muy zakat dafa ñëw ngir équilibrer société bi mooy ñi nga xam ne faj ñi ngi faj seen soxla bu baax lañu denc suñu borom mu ne am na ci société bi ñoo xam ne ñoom seeni soxla mënuñu koo faj su ko defee ñoom ñu jël ca jox leen ngir la nga xam ni munta ñàkk ci seen aajo ñoom ñu matal ko ñoom tamit amma ñetteel bi iqaamatul masaalihi al amma zakat day tax ñu mën a taxawal ay intérêt général loo xam ne nii ñépp ci jëriñoo allati tatawaqafu alayha xayaatul ummati wa saadatiha nga xam ne dana ca taxaw li dund xeet bi yëpp ak texe xeet bi yëpp ca loolee gisoon nañ la nga xam ne moo ci jiitu mooy li borom bi di wax naan fi sabilillah moo ñu dajale alalu zakkaat yi ba man cee am armement ak ay waruwaay yoo xam ne dañ ko waajal ci jihaad fi sabilillah waaye man caa jàppale it ña nga xam ne ñooy taxaw ci jihaad fi sabilillah loolee mi ngi noonu ñeenteelu acte bi wala boog ñeenteelu xikma bi ñu mën a gis ci ki nga xam ne day génne zakat moom mooy taxdiidu min tadaxumil amwal inda al agniya mooy jéem a limité ngir mu bañ a dajaloo alal ja ca borom ca borom alal ya rek mi ngi noonu wa bi ay di tujjaar wal muxtarifin alal ja di yem ci loxo commerçant yi ak ña mën a liggéey rek kay la taxsural amwaal ngir alal ja bañ a doon luy tënku fii taifatil mahduuda ci benn kuréel boo xam ne nii bu ñuy lim rek lay doon aw takkuuna duula tan bañal axniya wala muy nekk di circuler rek ci biir ña am ca mbokk loolu la tubaab bi di wax naan circulation des biens mooy dëkk bi pour mu dox fokk ñi am alal bu bari génne alal jox ñi amul dara bu ko defee ñépp am lu ñuy xëy di def loolu mooy développement réew soo xoolee ay Malaisie lu bari ci dëkk asiatique yi la ñu tuddee microfinance microfinance ca la ñuy jaar pour gën a développé wu looloo tax ba zakat day nekk xikma boo xam ne tey jii da ngay xool rek benn réew bu ñu ne woon am na fa quarante milliardaires quarante milliardaires boobu chaque année daan jël un milliard jox faqir yi ñu noonu mooy fu nit ñi amee quarante milliards rek un milliard ba faqir yi ñoo ko moom su doon quatre cent milliards dix milliards yee faqir yi ñoo ko moom ainsi de suite su ko defee loolu da ngay gis ni société bu mu mën a doon bu ñëpp génne woon zakat ci ni mu waree lañ mën a jëriñ kenn xamu ba am na études yi ci gars yi def ci wàllu même Sénégal gi rek lépp li ñuy laaj ci impôt bu doon nit ñi xamal nañ leen dëgg-dëgg lan mooy zakat rôlu zakat ba nit ñi di ko génne triple ne kenn ko combien de fois li gars yi xalaat ni buñ ko génnoon ci impôt dëkk bi dox loolee kon nga xam ne mooy alal ji di bañ a tënku ci ay nit rek waaye di tasaaroo ci biir nit ñi loolu it nekk na la nga xam ne mooy jubluwaay bu màgg te la nga xamee ne nii mooy génne zakat boobu su dee ñetteelu bind bi lan lay jàngale mooy xukmu maani maani uha waa ki nga xam ne nag jullit la waaye moom du génne zakat lan mooy mbiram man mën a azakata jahidan li fardiyatiha kafara képp koo xam ne dafay bañ a génn zakat ngiree jàpp ne zakat waru ko ku mel ne noonu yéeféer la kooku yéeféer la la ko def yéeféer du ñàkk joxe azaka la ko def yéeféer ñàkk gëm ne azaka farata la looloo ko def yéeféer ñu ngi noonu lu mel noonu la ñuy wax ci julli la ñuy wax ci lépp wa man mana a buxlan ma a iqraarihi bi wujubatihi asima koo xam ne nii nag moom da koo joxewul waaye xam ne ne zakkaat kay lu ko war la ngiree nay ga nay nay ga nekk ci moom ku mel noonu day tàbb ni ci bàkkaar bu mag wa uqizat minhu kurhan ma a ta'zir ku mel noonu dañ koy jël ci moom ci force boole teg ko ci ay daan daan jël ci moom zakat bi ba pare teg ko ci ay daan am na ci yeneen riwaayu yi wax genn wàllu alalam dañ koy nangu ñu ngi noonu wa in qaatala duunaha quutila te bu amoon doole ne day xeex pour kenn du jël alalam dañuy xeex ak moom ba jël alal ja xatta yaxdaa li amrillah wa yuaddi zaka ba baa muy wommatul mbiri yàlla joxe azaka ba li qawlihi taala fa in taabu wa aqamu salaata wa aatu zakata fa ixwaanukum fi din suñu borom nee na yéeféer yi suñu nangee tuub lu ko ci diine taxawal julli joxe azaka ca la ñuy doog a nekk seeni doomi ndey ci diine ji waaye képp ku ne jullit nga ca doo julli jullit nga doo joxe azaka kooku du suñu mbokkum jullit amoo droit di ko wax mbokkum jullit mi ngi noonu wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila annaasa xatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de dañ maa digal naa xeex ak nit ñi ba ñoom ñépp ñu seede ne kenn yeyewul ñu koy jaamu ko dul yàlla ca man mii de maa yonent bu yàlla wa yuqimu salaa ñu taxawal julli wa yu'tu zaka ñu joxe azaka fa ida faalu dalik su dee ne def nañu loolu asamu minni dimaahum wa amwaaluhum illa bi xaqi lislaam wa xisaabuhum ala allah suñu defee loolu day muccal nañ ci man seeni deret ak seeni alal lu dul ci aqul islaam seeni xisaab lay dellu ci yàlla comme niñ ko jànge woon ci lu passé kama anna aba bakarin saddiq radiallahu anhu gis nañu abu bakar bi mu nekkee xalifa fi qitaali maani zaka bokk na la mu waxoon ca ba muy xeex ak ña nangul woon génne zakat qaal wallahi law mana'uuni anaaqan kaanu yu'adduunaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la qaataltuhum alayha Aboubacar lenn ci gëri arab yi bi yonent bi faatoo dañ ne ah ñun zakat yonent bi lañ ko doon jox moom la yàlla santan mu jël ko comme faatu na nag dootuñu yóbbul kenn zakat Aboubacar ne maa ngi waat ne suñ ma xaj suñ indiwul. la nga xam ne mooy benn tef mooy bëy bu ndaw buñ ko wàññee te seen zakkaat ba ñu war a joxe dana xeex ak ñoom ba zakkaat ba mat sëkk wa waafaqahu sahabatu ala zalik noonee la ko sahaaba yi dëppoo ak moom ci loolu fa kaana ijmaan minhum loolee nekk dëppoo goo xam ne ni dañ koo dëppoo kon mbokk lii bu ñu xoolee ñuy jàngal bind yu màgg yooyu faratay zakat xikmaam ak atte ki ko joxewul ñu war a dem nag ci détails yi naka lay demee allahuma lu dul ne am na mbokk bu am laaj bu aju ci lii ñu jot a jàng bala ñu dugg ci détails yu zakat bi naka lay demee su dee am na incha allah ala kulli xaal bu dee ne amul kon ñu continuer ci suñu dars bi mooy fi ajnaasil amwaalil muzakkaat wa gayriha ci leeral yan mooy façon alal yi ñu war a génne zakat ak leneen lu dul moom bokk na ci mbokk xiiwul ak borom bi jalla wa ala la ngay jëkk a xam yow julit mooy zakat yàlla tëralu ko ci alal yépp ne kon musiba am bu doon suñu boroom ni mu tërale miiraas ne mimma qalla minhu aw kasura bu ngeen dee miiraas nañ évaluer alal yépp lu néew ak lu bari bu doon te ne dañ ne nit ki li nga moom at mu nekk génn ko zakat dana doy war lool nga gis koo xam ne nii kër gëm dëkkee ëpp na cinquante millions wala cent millions te yorul cent mille francs ci poosam loolu day indi problème ba tax suñu borom tënk ko ci alal yu néew alal yooyu la ca jiitu mooy an naqdaan mooy yi ñuy fayante te mooy or ak xaalis mooy or ak xaalis or argent nga xam ne depuis yàgg na ci àdduna loolu la mooy base nit ñi ci li ñuy fayantoo mi ngi noonu an naqdaan wa huma zahabu wal fidda mooy or ak xaalis wa ma yaqumu bihima min urudi tijara ak lay taxaw place am ca la ñuy gaaral ca commerce ba nga xam ne day rouler entre xaalis marchandise xaalis marchandise wa ma yulxaqu bihima min al maadin wa rikaz ak lépp lu ñuy dabantel ca loolu ca la nga xam ne mooy miin ya fa ñuy génnee la nga xam ne mooy këriñ gaag gaz yaag weñ yaag yu demee noonu wa rikaaz mooy la nga xam ne mooy denc maam ya loo xam ne nii ca jaahiliya lañ ko dencoon ci alal yow nga dem sulli ko gis ko wa ma yaqumu maqaamahuma min al awraq al maaliya doonte ni yii yépp am na luy taxaw place am mooy këyit yi ñu mujj créé créé muy këyiti xaalis yi ngeen xam da ay dollars yu ko euro yu kon xamul nga xam ne ay këyit la di qawlihi taala walladina yaknizuuna aldahaba walfidda suñu borom mu ne ñi nga xam ne dañuy denc alal or wala xaalis wala yunfiquunaha fi sabilillah te duñu ko dépense ci yoonu yàlla fa bashiruhum bi azabin alim ñooñee day bégal leen ci mbugal moo xam ne mbugal mu tar mbugal mu tar lay doon wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam laysa fi ma duuna xamsi awwaaqin sadaqa yonent bi alayhi salaam mu ne koo xam ne la nga am matul juróomi awaaq sarax du ca war awaaq mooy uuqiya moom la Mauritanie di wax uuqiya mu ngi noonu benn uuqiya bu mu mën a doon day nekk ñeen fukki dirham ñeen fukki dirham loolee dirham bi dafay doon à peu près ay trois grammes mu ngi noonu looloo tax ki am ñeen benn awaq bu nekk bu dee ñeen fukki dirham juróomi awaq yi day nekk deux cent dirham loolu tax nga dégg ay nit naan ku denc ñaari téeméeri dërëm day jël juróomi dërëm sarf ko waaye mbokk ba ñuy wax ñaari téeméeri dërëm jëbluwuñ ci suñu mille francs yi ñu ngi ci jëblu dërëmu sharia bi nga xam ne boo ko doon pesé day jege trois grammes ku ca denc denc ñaari téeméer day nekk six cent grammes ci xaalis loolu ci la ñuy génne zakat mi ngi noonu année yi ñu génne nii grand bi da doon tourner autour de cinq cent francs looloo tax ngay dégg ñu naan ku am plus de trois cent mille da nga war a génne zakat ci base boobu moo tax ñu koy wax wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu al ajamaau juruxuha jubbaar mu ne la nga xam ne mooy bàyyi may ku ñu jamit da ngay perte mooy ki sàggan ba am am xar wala wala nag wala lu mu mën a doon ñëw daal di koy mbëkk jam ko ku mel noonu duñ dem mukk ca borom xar ma wala borom nag ma ne ko kaay fay kii yow kay yaa war a moytu ba bàyyi ma yooyu duñ duñ dal sa kaw wal bi'ru jubaar ki sàggan ba daanu ci teen ba duñ dem mukk ca borom teen ba naan ko yow yaay fay diya wal ma'dinu jubaar képp koo xam ne da ngaa dem di gas ay miin loolu xeexu de liggéeyu risque la boo ci dee da ngay perte wa fi rikaz alxams mi ngi alxums bu dee ne ci for denc maam ya ku mel noonu dañ naan juróomeelu alal jalay génne comme zakat ñu ko xoolee muy cinq cent mille cent mille ba mooy nekk zakat kon mbokk ci wàllu xaalis bi ñuy jëflanteel base bi mooy loolu doonte ne ne am na loo xam ne indiwu ko fi mooy wàllu or bi or bi ki am ñaar fukki dinaar kooku mooy génne zakat benn dinaar bi day nekk à peu près ay 4 grammes 25 ba nga xamee ni boo ko xoolee. ñaar fukki dinaar yi di nekk quatre vingt cinq grammes d'or ki nga xam ne daa denc quatre vingt cinq grammes d'or kooku day génne zakat waaye dafa mel ne ci waxam ji dafay xaw a dab borom xam-xam yi nga xam ne dañ ne or bu dee dañ ci basé zakat dana am ñu bari ci jullit ñi dañ mën a am nisaab ndax day dem ay un million cinq cent jëm deux millions amma bu dee ne dañ ko basé ci xaalis su boobaa nga xam ne day tourner autour de trois cent mille jullit ñu bëri dañ mën a génne zakat te loolu it moo ëpp njëriñ ñeel fuqaraaw yi loolu mi ngi noonu waaye base zakat or la ak xaalis bu dee ñaareel bi yi ñu génne zakat mooy jur gi mooy jur gi al anam jur googee soo ko déggee mooy al ibil wal baqr wal baqru wal ganamu boo déggee ñu ne anam ba suratul anam xamal ne mooy juru kër gi ñu ngi ci jublu gilim yi ak nag yi ak xar yi ak bëy yi muy gàtt yi li qawlihi taala ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabtum ay yéen julit ñi dépense leen ci tey yi ngeen di fag te mooy jël ak jur di ko sàmm muy produire loolu yaa ko fag bokk nag la yàlla génne ci biir suuf muy meññante wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam liman sa'alahu anil hijra yonent bi alayhi salaam benn waaye daa ñëw ne ko dama bëgg a gàddaay ñëw fekk si la yonent bi alayhi salaam ne ko way xaq inna sha'naha shadid gàddaay day mbiram dafa tar fahal laka min ibil ndax yow am nga ay giléem tu addi sadaqato sadaqataha ndax am nga giléem yoo xam ne nii yow yaa ngi joxe la nga xam ne moom mooy sadaqatuha mooy zakaatam qaala naam qaala faamal min warai lbihaar demal nga liggéey ci gannaaw géej fa inna allaha lan yut lan yutrika min amalika shay'a sa borom yàlla day du la wàññil ci say jëf dara te mooy la nga doon sàkku ci loolee nga xam ne mooy hijra def gàddaay su dee ne yaa ngi dem ca àll ba yor say giléem di ko sàmm waxtu wu année bu nekk nga xool zakkaat bi dem jox fuqaraaw yi tuyaaba ja nga doon sàkku ca bàyyi loolu lépp dem toogi madina hijra day da nga am ci lu da nga am ci lu mel loolu lépp mi ngi noonu wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wallazi laa ilaha gayru maa ngi waat ci ki nga xam ne kenn yeyewul ñu koy jaamu ku dul moom maa min rajulin takunu lahu iblun aw baqarun aw xanam du nekk mu ko benn góor goo xam ne dana ko ñeel ay giléem wala ay nag wala ay xar laa yu addi zakataha ba pare du génne zakatam illa utiya biha yowma alqiyama azama ma takun wa asminahu lu dul dañ indi jur googu yépp yowmal qiyaama muy nam gën a rëy ci ni ni bàyyi ma mën a toll ak nam gën a duufe tatahuha bi axfaafiha wa tantahuha bi quruniha su ko defee jur ga ñëw di ko joggi ca seen weya di ko jam ca seen béjjéen ya kullama jaazat axiruha buñ demee ba mujjoon ka mujjoon jàll roddat alayhi awaluha ñu delloo si moom bu njëkk ba xatta yuqada bayna noos ba ba ñuy atti diggante nit ñi loolu nekk lu tiitlu mooy kamoon ak jur ci du génn zakat mu ne suñu borom da koy jox melokaan fa jur mën a toll ci réyaay ñu tëral waa ji léegi nag ranger les giléem yeeg nag yeeg xar yi ñu ñëw di jogg ci kawam bu ñëw dana ko joggi ak weyam jam ko béjjënam bu dee nag la wala xar noonu la ñuy defee bu ñu demee ba ba jeex ñu retourné waat leen ba bàyyi yàlla di atte jaam yi te mbokk suñu borom bis bi muy atte jaam yi àllaaxira mi ngi duré cinquante mille ans muy noonu yàlla na yàlla musal ñi ci loolu bu dee nii bi ci mujj mooy asamaru wal xubuub mooy meññeent ya ak pepp ya alxubuub hiya kullu mudaxirin muqtaad lii di pepp yi mooy lépp loo xam ni mënees na koo denc lu yàgg di ko dunde min qamin wa sha'ir dañu orge la blé la wa fuulin len na ci ay façon ñebbe ya wa xumusin yooyu yëpp ay façon la wa julbaana genre façon ay gerte la wa luubiya yooyu it ay façon yu ñuy jëfandikoo la yoo xam ne il faut ñu tegal la ko ne la lii la nga doog koo xam li nga noonu wa adasin mooy la nga xam ne mooy lanti wa zurra loolu it mooy pepp yu sew a sew la doon lu bari solo wala suñu suuna yi wa sultin moom it façon la ci dugub yi wa urus moom mooy ceeb wa nahwihi ak lu mel noonu ca mooy ci gàttal bépp pepp boo xam ne nit ki mën na koo denc lu yàgg bu di ko dundee loolee pepp yooyu yëpp da ngay gis ni dañ caa war a génne zakat mi ngi noonu ca loolu mooy règle ci lu bari ci fuqaha yi yan lu ñuy génne zakat mooy lu ñu mën a denc ca mën koo dundee lu ñu mën a denc ca mën koo dundee mais loo xam ne boo ko dencoon fii balaa semaine mu yàqu kenn du ko ca boole wa ama samar bu dee ne meññeent ya fa huwa tamr mu ne mooy lu mel ne tàndarma ya zaytun olivier wa wa zabib ak raisin ya li qawlihi taala ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabtum ay yéen jullit ñi dépense leen ci tey yi ngeen di faggu muy commerce ba ak jurga wa mimma axrajna lakum min al ard ak liñ leen génneel ci suuf ca mooy meññente ya ak pepp ya wa qawlihi subhanahu wa taala noonu la yàlla waxee ba tey wa aatu xaqahu yowma xasaadi ngàllawaay lépp lu ngeen bay na ngeen joxe àqam bis ba nga xam ne da ngeen koy góob wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam laysa fi ma duuna xamsati awsuqin sadaqa du nekk ci lu yées la nga xam ne ni mooy juróomi awsuq lii di sadaqa wasaqa boobu mooy li ñuy tuddee juróom benn fukki saa bépp wasq day nekk juróom benn fukki saa mu nekk à peu près cent vingt kilos su dee juróom ya day nekk six cent kilos looloo tax borom xam-xam yi di wax ne bu dee ne yow li nga bay ci dugub buñ ko xooloon bojj ko dana mën a génne six cent kilos ñu ne kon lii tool bi zakat war na ci ndax da nga ci am xam sa ci aw suq muy juróom benn fukki muy ñett ñett juróom ñetti téeméeri saa di firi 600 kilos am ñetti téeméeri saa saa aw wasq bu nekk 60 saa la 5 fois 6 muy muy muy ñetti téeméeri saa saa bu nekk 2 kilos la boo ko xoolee muy 600 600 kilos wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam فيما سقت السماء والعيون أو كان عصريا العشر lépp loo xam ne asamaan moo taw mu sotteeku ca wala dex yaa ko romb wala mu nekk loo xam ne nii dafay jël ci ay reenam directement di génne loolee da ngay gis moom fukkeelam la ñuy génne zakat mooy daal lépp loo xam ne yow yaay ut ndox di ko ci sotti waaye mooy màggal boppam ca ndoxum taw baag déeg yay romb ca wetam loolu moom fukkeel ba ngay génne wa fii ma suqiya bi nadaxa nisfu l'ashr nisfu l'ashr su dee nag yow yaay root ndox ma di sotti ca meññante ma ba mu màgg su boobaa genn wàllu fukkeel ba ngay génne masalan ki taw bi arroseel mu am fukki saaku benn saaku lay génne ki arrosel boppam am fukki saaku moom genn wàllu saaku lay génne ñu ngi noonu muy nisul onchero lii mbokk dañuy gis ne moom moo aju ci wàllu googee nga xam ne nii mooy zakat yi ak yan ca war a génneeg yan ca war a kii yëpp mi ngi noonu waxtu bi fi mu toll jotagul des na waaw waaw mu ne kon al amwaalu lati laa tuzak laa tuzakka al amwaal allati laa tuzakki wa hiya alal yi nga xam ne kenn du ko génne zakkaat ah jot na waaw ala kulli xaal kon dafa mel ni dañoo war a ñu bàyyi noonu balaa dars bi bari torop ci bopp nit ñi su ko defee bu ñu noddee ba pare li ci des ñu jagleel ko ay laaj insha allah su dee ne nekk na lu mi ji ci boppam zakkaatu alal ji ci boppam mooy alal ji nga jël ci la nga xam ne moo ca yeyoo jox ko la nga xamee ne ni mooy fuqaraaw yi te it doomu aadama bi gëm ni matal aq sa digganteeg sa boroom ak aq sa digganteeg say moroom rek mooy tax a texe même bu doon te ne sa digganteeg sa boroom da ngaa matal aqam te sa digganteeg sa moroom nga sàggane ko dalay alak yowmal qiyaama te noonu la ko yàlla noonu la ko yonente bi waxee nee na nit dina ñëw yowmal qiyaama julli yi koor yi yépp mat na waaye fekk dafa tooñoon doomu aadama yi ñu jël ci ay aqam daal di leen di jox loolu moo tax ba ku mel ni Ibn Abbas daana wax ne ñett yi yàlla moo ko lënkale ku ko bëgg a teqale xamal ni bokk xamoo lu lislaam benn mooy nañu topp yàlla topp yonent yàlla ñaar yi kenn du ko teqali képp ko jóg naan day diineem daal mooy topp alxuraan rek ca toppul yonent yàlla déedéet xamul luy diine gannaaw ba anushkur li wali walidayk mooy sant yàlla sant say waajur képp koo xamee ne nii jàpp nga ne sa borom yàlla nga war di toroxlul kii sa waajur moom faale woo leen xamoo luy sa diine ñetteel bi mooy aqimu salaa wa atu zaka taxawal leen di la ci joxe azaka loolu it kenn du ko teqale lu waral loolu mooy dafa lënkale ñaari aq fondamental yi siq doomu aadama aq boroomam ak aqu ay moroomam yim nekkal ci kaw suuf mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam koor go ndax salafu saala daanañ jàppee ay kawas yoo xam ne ni dafa dafa bënn ala kulli xaal bokk na ci lenn ci fuqaha yu di wax mooy la nga xam ne moom mooy masa day doon lu muur sa palaasu farata ba ngay jàppe yépp mooy tànk bi ba ci kaw kosseen bi warul nekk loo xam ne dafa yaraax warul nekk loo xam ne dafa xotteeku loolee moom lu bari ci mazahib yi xatta ci mazhab Malik risaala yi ñu doon jàng ak loolu la amma am na ci ñenn ci ñoom rawatina fuqaha yi mujj a ñëw lu mel ne Cheikh Usaymin ak ñeneen ñu dul ñoom ñoom dañ ne sahabatul kiram la nga xamee ne mooy bat yoon doon sol daawul deñ di xotteeku daawul deñ di xar te dañ ko doon dañ ko doon jàppe loolu it moo tax ba kawas boo xam ne am na fu mu xotteeku wala bot boo xam ne am na fu mu xar loolu lépp du tee ñu mën a masa ca kawam su ko defee masala yooyu heure bu ñëwee la ci gën rek mooy yow nga fexe dëppoo ak mbooloo mi sa kemtalal kattan fexe ba looy sol ci ay kawas walay dàll muy fat su dee ne yëng nga ne ngant am na amoo lu dul lii it nga massa ca ca doyloo borom xam-xam yi ni loolu it ku ca massa dana baax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah ala kulli xaal ndax ki julli jot mu tëj place am dem julli ji dañ koy bindal tuyaaba ne ko génne azaka naam mën nañu déggee ci ne suñu borom moo nañu soo demee ci néegu yàlla ya day muy jàkk ya dafa fekk rijaalun laa tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqami salaa wa itay zaka yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulub wal absar li yajziyahum allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli yàlla subhanahu wa taala nee na ki nga xam ne dafa bàyyi commerce am dem ca néegub yàlla ba di julli ngir ragal àllaaxira ga mu nar a jëm yàlla dana leen fay lu gën lañ doon def dana leen dolli ci ay ngëneelam ca la chaque ne ki nga xam ne commerce am ragal na ci yàlla bu julli jotee du ko yàqal ak julleem mooy gën a barkeel fuuf koo xamee ni nii melul noonu mi ngi noonu sama benn xale bu nekk fële ca Italie mi ngi koy wax daa am ku mu sësal place nee na man bu waxtu julli jotee rek ba tëj dem julli ji moom ma nga continuer di jaay léeg-léeg jaay mu dox lool mais dañu dem ba mu ñëw nu ma bis mais waa ji mu ngi tudd Moustapha Moustapha man damay julli ji de mu ne ko lu xew mu ne ko man gis naa yow toujours yaa ngi tëj sa place bi di julli ji man maa ngi continuer jaay ci sa sama place rawagul sa place yaa ngi de kon man damay julli ji man tamit loolee ko ñun mbokk dañuy gis ne bokk na ci loo xam ne lu am solo la mooy loolu moo tax Arabie Saoudite mi ngi noonu yàlla na yàlla sàmm leen am na ay rumeur yu may dégg ñu naan doo dafa farata waaye ala kulli xaal daal ba lu yàggul dara fu ñu noddee kenn amatul droit jaay ñépp ay tëj te it la leen yàlla fay gis nañ ko la fa wàcc ci xéewal yàlla rek moo ko xam mi ngi noonu ci wàllu gu nekk xanaa kay nuñ koy gérer waaye bu dee wàccu xéewal moom suñu borom bi sotti na fi xéewal loolu it kon it muy wane ne commerçant bi xamal ne la ngay bàyyi sa commerce jagleel ko jaamu yàlla wallahi day barkal commerce bi yokk ko du la ñàkk loo mëkk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal mbokk yi xam naa waxtu bi des na ba léegi day ay des na des na quatre minutes waaw bismillah waaw waaw mu ne waaw waa ala kulli xaal ki am doom toppatoowu ko ba am koo xam ne nii dafa ñëw di ko bëgg yooyu moom xam nga dafay xaw a jeng ci wàllu atte dafay jeng ci wàllu atte ba nga xamee ne daal la gënoon a mucc ayib daal comme mooy baayam ci mi ngi fi nañu fexe ba convaincre ko ko ba moom mu nangu ñu maye xale bi suñu demee nag ba yëg ni nam ko ñàkkoona toppatoo ba muy ndaw yépp da ca boole it di ko gàllankoor ci wàllu sëy su boobaa ku neen ku koy maye doo koo may waaye daal buñ tëb mukk maye ko fekk baayam bi ko jur moom mi ngi fi dund na doon toppatoo na ko ñàkk ko toppatoo lu dul na dañoo dem ba yëg ne mi ngi jóg tànki lor xale bi bu dul looloo daal mu maye ko mooy la gën a dal xel wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam waaw ndax zakat mënees na koo génne naam zakat mënees na koo génne ci ñaar mënees na koo génne ca fank jëmi ñoo ko gën a aajowoo mënees na koo génne ca fa nga ko jëmee ñoo la gën a jege mi ngi noonu tey yow mi nekkoon Europe tey wala nekk Sénégal say mbokk ñi ngi Fuuta wala feneen say feer ak say yooyu dañoo aajowoo amuñu ñu mel noonee ne di nga xam ne ñooy say jegeñaale Rasul sallam dani boo leen joxee sarax day nekk ñaari place lay taxaw day nekk jokku mbokk ak sarax naka noonu it bu dee ne fañ ko jëmee ñoom dañoo aajowoo dañoo gën a gën a sonn sonn boo xam ne nii sonn bu tar la su boobaa it mënees naa dem dabu teggi leen loolu amma bu dee faqiir yi ñi nekk fii ak ñi nekk fee ñoom ñoo yem ñi gën a priorité moo ñi nekk fi nga xam ne fa nga faggoo alal ja wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal ah non non non ala kulli xaal daal ñu xam ne li nga xam ne mooy wàllu zakat jullit bu nekk dafa war a ñaan yàlla subhanahu wa taala boole ko ci ñiy mës a génne zakat gis nañ ñey isa ibnu mariam bi mu nekkee ci bersoom di wax ak ñii di bani israil daf ne man de yàlla def na ma yonent jox na ma téere te it boole ma ci may fa séene taxawal julli ci génne zakat ku nekk daf ko war a yéene di ñee ña koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na àdduna ñi ko séq mooy ñii ki ci jëkk mooy ki yàlla wërsëgal alal wërsëgal ko xam-xam alal ja mu koy def fa neex yàlla am benn waay mu naan ak a neexoon ma am li may li diw am ba man ciy def li ma ciy def loolee da ngay gis ne kon jurit bu nekk waroon a nekk ci yéeneem yàlla wërsëgal ko alal ba ni muy taxawee julli mu koy joxe azaka comme ñun ñëpp ni ñuy bëggee dem Makka Sénégal boo ne yàlla nga dem Makka mu ne amin naka noonu nit mbokk dem Makka li muy baax baax azaka ko gën a foor nga noonu xam leen ne li gën a màgg ci diine ji mooy shahadatu an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah ñaareelu mooy taxawal julli ñetteelu mooy joxe azaka moo gën a màgg koor moo gën a màgg aj màkk kon war nga bëgg bokk ci ñiy génne zaka comme ni nga bëggee dem Makka ñaareel bi it mbokk jullit lii ñuy jàngi nii wallahi lu bëri ci nit ñi xamuñu ko am na ñu bëri ci nit ñi ñoo xam ne xamuñu ni ñuy génne zaka yaa ngi dégg man toog naag un gars boo xam ne il est presque milliardaire jege na 70 ans musul génne zakat yaa ngi dégg xam nga loolu musiba la su ko defee itamit yow même bu la yàlla defee yow mosoo génne zakat na am waaye xam nga ñoo xam ne say jegeñaari lañ ca wóor na ne kii am na lu mu génne zakat ca jortu nga ne kii day du génne zakat nga laayu ko biir ba convaincre ko wallahi bu génne woon cinquante zakat balay dee lu mu génne yàlla bindal la ko am déet mi nga noonu képp ku woote jëme ci lu yiw yàlla bindal lu mel noonu loolu it kon zakat bi it loolu ñuy bàyyi ci xel bu baax moo dina ne di ko yéene di ko sabablu te di ci ñaaxaate ñeneen ngir suñu borom yàlla subhanahu wa taala buñ ko jooxewul it yool ba ca nekk moom mu bindal ñu ko yal na yàlla barkeelal ñu képp ku koy génne ci ñun yal nañu yàlla booleeg ñoom ca yool ya barkeelal ñu suñuy alal ca may ñu la nga xame ni mooy ngërëmam fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain